ahlan bikum njiiti réew mi Macky Sall fa tàggatoo ca Tuubaa ca kanam xalifa ba allah yéene kaayu tey presque ñoom ñëpp fa ñoo xëy bind li ni mel yaw fa ngay xool témoin yéene kaay yoor yoor yéene kaay turbine laas 24 heures gp le regard direct news réew mi l'observateur les échos ak yeneen journal fa nga fay fekk photo njiiti réew Macky Sall ak xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké les échos yéene kaay ne démb fa faa demoon moom njiitëram Macky Sall ngir màggal gi waaye fa faa porox ndollu jaaree fa tàggu xalifa bi ci xamal ko ne bii mooy sama màggal gu mujj en tant ndax ren laay jeexal ci bopp réew mi déwén bu neexee yàlla beneen président bu Sénégal moo ñëw fii ci màggal gi ba tax faay sàkku ëllëg ki ma nar a wuti ci réew mi mu bañ a wor réewum Sénégal kon nag tàggu naa la yow xalifa bi xalifa général des mourides gërëm ko moom njiit réew mi rafetlu taxawaayam ñaanal ko yàlla na ko li ci kanam mooy dàq fuuf ba tax yéene kaay bi ne non tàggatoo bi fa daw yaram l'observateur dëggal ko ne yëf yi démb fa daw naan leen tàggatoo moo mel noonu daraa ci neexut critique yéen a kaay naka moo tax njiit réew mi génn na ci buntu bu mag ca Touba maanaam faraa bëgg a wax ne ni mu demee farafet alerte yéen a kaay ne waaye nag moom njiit mi wax na xalifa ba na ko fii ak nag may joxe lenge yi maanaam kenn di ma remplacer ci bopp réew mi weer yi ma fi desee fay fexe sàmm wante ak kaaraange réew mi ak dal du ma seetaan kenn di ko salfaañe Dakar Presse ne njiit mi kay fa sa taxawaay ak li nga def ci dëkk bu sell bi Touba yëpp gis nañ ko jamono bi nga nekk président yëpp sa itte mooy lu suqali réew mi am jàmm ak dal ci lii nga nekk ma ko waxee ca libération info yéene kaay na ko njiiti mi kay fa njëkk a wax xalifa bi na ko man faa ñëw fii comme taalibe comme doom comme njiitum réew li ma diggee woon nag sénégalais yi mooy ñaari mandat laay def sàmm naa samay kàddu kon 2024 du ma bokk ci wote yi terewul président moom lañ seetlu ni ki démb wax populi na leen man faa leen di wax lenn ci waxtaan yi nga xam ne xalifa bi ak njiitëram Macky Sall waxtaanee nañ ko ca biir néeg loo xam ne kenn fekkewu ko yaaw fa ngay xool mbiru Ousmane Sonko grève de fin ba mu nekkee xalifa bi waxtaan na ca ak njiitëram Macky Sall waaye yow askan yam dalaloon moom xalifa bi la mu leen waxoon ca Ousmane Sonko la ca xew ak grève de la faim ba mu nekkee àddu nañu ca leer leneen lu leer ba yegg ca na ko niki lu yéen a kaay moo ñu ko xamal turbine yéen a kaay dëggal ko na xalifa ba nag bugaan géy dani fa ko wax tolluwaay réew mi li ci xam ba pare sàkku ci moom ñaan wote 2024 yi xalifa ba déglu na ko ñaanal ko yàlla ñu bëgg a ñaan ci njekk njiit réew Macky Sall ngir mu bàyyi ñi nga xam ne fañ leen a tëj kaso ndax politique ak wax seen xalaat ci réew mi du ñenn ñu mooy waa société civile bi yaaw seetal société civile bi fa ñoo bëgg a dajeek jëwriñ ji ñu dénk wàllug bi réew mi ak jëwriñ ji ñu dénk wàllug yoon ngir ci ñoom ngir yàlla ñu bàyyi ñu ko xamal source ay yéen a kaay li nga wax ñoom société civile bi fa ñoo sax ci waa Pastef yi ngir ñu jox leen liste téeméeru patriote yoo xam ne ña nga ca kaso ga ngir ñu ñaan njekk jëwrin yi ñu bàyyi leen ñu génn waaye bañ leen ko waxee waa Pastef yi fa bañ ba tëdd ca naaj wa ne ñoom du ñaanal ñii bàyyi ña ca des déedéet kaso kay bu ñuy bàyyi fa bàyyi ñëpp génn waaye amul nañ bàyyi téeméer ña ca des ñu bàyyi leen ca kaso ga loolu du ak ngor te ñoom ñëpp leen na leen ña def grève a fës mooy Ousmane Sonko a kaay na leen Cheikh Baara Ndiaye moom bàyyi nañ ko mu génn kaso a kaay bi ne kilifa diine yi dugal bi ña ngay tàmbalee bàyyi gaañ yi yor yor yéen a kaay yi ne ñoo ñu tëj kaso nag seeni mbokk yi buñ demee di leen seeti jë ca rëbës coono bu du xaaj du jeex lañ fay dundee grand place yéen a kaay ne ngir yàlla ak màggal gii ñu nekk kilifay réew mi fa ñoo waroon a bàyyi ñi ñu tëj kaso ñu génn ndax jàmm ak dal am ci réew mi <laughs> leer lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne Juan Branco avocat Ousmane Sonko ba fa daal di leeral ne lim bindoon ca Facebook am ba fan yi ñu bëri tekkee ko ne fa wax na Sonko fa pare pour négocier waxtaan ci suuf daal pour ñu bàyyi ko mu génn kaso Juan Branco ne na loolu du dëgg mësumaa wax loolu te sama wax ji jubluuma ci loolu ñi ko interprété nag fa ñoo wax lu leen neex faa bëgg mu leer gis ngeen Ousmane Sonko parewut sax ngir négocier ba àdduna tukki laa wax ngir ñu bàyyi ko mu génn ndax fañ wax ñu ko mooy ne candidat benn bokk yaakaar Amadou Ba lay waaw waaw moo ko gën a jege ñëpp libération moom fa ñoo xamal ne maire bu sàngal benn waay fa dóor ay mbokkam juróomi million lekk ko dem ba leen fa a yaaw seetal waa ji fa ñëw na leen mën naa génnee seen doom ji ci kaso gi ndax man faa jege procureur ñu gëm ko jox ko cinq millions mu lekk ko na mes yéene kaay bi na njabootu Pape Sow kay maire bu sàngal kaam fi mu toll nii fa ñoo boole jaaxle ak jom mi ah seen doom jàng ca kaso ga ñu nax leen yóbbu seen cinq millions xam nga ne loolu doy na waar la leen lu doy waar ba yegg ca lool l'observateur moo ñu ko benn jaaykatu tàngana moo doon xuloo wax yu ñàkk fayda ak benn naataangoom wax ju ñàkk fayda jooju moo andi coow andi xuloo ba mu jigi jaaykatu tàngana ba fa rocci paaka daal di koy bojji naataangoom ba mu doxee fa faatu ñàkk bakkanam allah hmm, waa ma ne Sénégal presque bët bu set ngeen dégg koo xam ne fa rey nit rey nit gi fa bëri ba jéggi dayoo waaye xam ngeen lu ko waral ñaareel ñi nga xam ne ñooy rey nit ci maa fa ñoo xam ne bu ñu reyee kenn du yàlla diglee konoon rey ndax dee kenn ko bëggut ñëpp bëgg seen bakkan yi